Sénégalais yi am nañ kóolute gu rëy rëy si ñun te gëm naa ne bu doon benn la bu yokku na tey ndax bi ñu toogee ba léegi lañ taxawee Sénégalais yi mooy wax leen dëgg ak jëf dëgg càmbar réew mi wax leen li fi nekk ak liñ fi ba ak niñ ko yàqee te fas yéene it lépp li nga xam ne conséquence la ci ñu tiire ko mooy ku fi def rek lu defuwut di nga ko layoo loolu bokk na ci solo sax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 Jamil Sané ak seen équipe yi dañu taxawal barème